encore une fois di leen nuyu bu baax a baax di leen wax ne na ngeen ko bëggee rek noonu rek lañ koy xel di defee yéen yegg leen ak jàmm tey nag ñi ngi fi nga xamante ne moom moo di Medina Baye ku ne Medina Baye xel day dem ci li nga xamante ne moom moo di gàmm gi nga xamante ne chaque année ñi ngi koy def fii mu nekk gàmm goo xamante ne bi mën naa ne chaque année dafay gën di yokk ndax euh, tubaarkàlla macha allah ne woon nañ euh, ba Niass amul tànk ginnaaw waaye tànk kanam la am loolu nag bu ñu ko waxee nag nga xool tey mbooloo mi fi ñëwoon daaw ak mbooloo bi nga xamante ne moom moo fi ñëw ren nga xamante ne am na différence loolu day wane ne islam euh, ngi avancé bu baax a baax tubaarkàlla macha allah léegi nag dañuy laaj ñi nga xamante ni moom moo di mbokk yi nga xam ne ñoo ñëw fii di ziar fi naka lañ fi ñëwee ak lan moo tax ñu ñëw fi ak ñaan nga xamante ni tey moom la ñuy sàkku fi sama caméraman a topp ma ñu daal laaj ñi nga xamante ne ñoom ñoo di askan wi salaamaaleykum sëñ bi Mouhamed waaleykum salaam wa rahmatulah tur bi Mouhamed Dioum waaw ñun de dañ nekk ay ndaw ndaw yoo xamante ni liggéeyal Cheikh Ibrahima Niass rek moo ñu ñor waaw ñu jógee ba Gambie ñëw fii waaw pour xidmal Mawlana Cheikh Ibrahim liggéeyal Mawlana ñëw fii rek pour toppatoo jaami yàlla yi ñëw fii si siyaare waaw ñu muur seen bopp yi xam nga sumi seen dàll yi buñ bëggee dugg si néegi Mawlana Ibrahim bi ñu xidmal léegi sëriñ bi daal. waaw ñun daal loolu lañ fi ñëw toog fii pour liggéey Cheikh Ibrahim rek waaw c'est-à-dire ñun ñaari mbir si leen nekk ñu ngi tamit ubbi foo ubbi benn waañi bàyyi fii tamit ñu ko wax Fidiane Sidikhi international ay sénégalais ñu ngi fi ay gambien ñu ngi si Guinée am na ñoo xam ne ñu ngi Guinée am na ñoo xam ne ñu ngi Mauritanie waaw di soxna su baax ñu ko Seyda Aïda Baye moom tamit waaw ndox soxna soo xamante ni ku am yitte si mbir mi la dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla si loolu bu baax a baax waaw waañ bi mu ngi fële si borom rombee kër imam Cheikh foofu la waañ bi nekk waaye ñeneen ñu nekk si biir ah, muy ñoom bay saal ay ñoom Baye Diop ñoom ñëpp ay Gambien leen waaw si lañ bokk ay ñoom Baye Ousmane waaw ñoom ñëpp waaw ñu moom ñu ngi seen gannaaw rek. waaw chaque année da bi mooy sa premier chaque année dama dee ñëw fii waaw chaque année damay ñëw damay ñëw gàmmu si. nga gisee organisation bi ak fii nii nu mu mel ndax ñu ni ko bëggee gars ñu ngi koy doxalee noonu ñu ngi sant yàlla si lu baax a baax waaw. ndax respecté nañ musóor yi jigéen ñi ngi musóoru bu baax a baax a baax a baax dëgg yàlla ñu ngi sol lu jot te loolu rek moo ñu tax a tax fii nii pour liggéeyal bàyyi waaw ñu di comme ormal barab bi daal waaw sant yàlla si loolu bu baax nag. ñu ngi lay jaajëfal alhamdulilah jërëjëf maa ngi lay sant bu baax a baax thank you very much. waaw Baye nekk koo xam ne international la parce ñu ngi jógee ba Gambie ñëw fii te yàgg nañ fee ñëw ndax Baye daal sëriñ bu mat sëriñ la. waaw loolu moo tax. c'est a première fois nga fi ñëw waaw. déedéet ma ma ma nekkee xale maa ngi fay ñëw di ànd ak suma yaay di fi ñëw lu yàgg waaw yàgg naa fee ñëw trop kay incha allah. naka nga gisee Medina Baye ren par rapport ak daaw. waaw non Medina Baye moom ren li ma si gis si mbooloo parce mun naa wax ne daaw sax ne amutoon comme ñu ngi jàpp ne daal Medina Baye amul tànki kanam tànki gannaaw tànki kanam rek la am at bu ne da nga naan ren mooy ren mooy gàmmam waaw loolu laa gis si Medina Baye incha allah. siyaare bi gàmmu ren gi de dama ko gisee neex na torop moom wax dëgg yàlla ñu bëgg Baye bi ñu ñëw nañu. taaliba Baye Niass la. waaw waaw taaliba Baye Niass laa koy ren gi neex na. neex na moom torop sax. ñoo par rapport ak bu daaw bi. ah bu ah, naa bu bi moom neex na daal moo waaw neex na torop moom. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw ñu ngi lay sëñ bi. tur bi nan la. Baye Zal Barhama. Baye Zal Barhama euh, ñu bëggoon nga ñëwaata ñuy tuuti rek ci bërëb bi ñu nekk mooy fan. waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla julli ci yonent bi di sant suñu sëriñ Maulana Cheikh Ibrahim mi nga xam ne moo fa dajale jaami yàlla yi jógee ci barab yi nga xam ne dañoo fasanteku am na ñu jógee Nigeria ñi jógee Gambie ñi jógee Ghana ñi jógee Burkina ñi jógee ci yeneen réew ngir ñëw ànd ak Maulana Cheikh Ibrahim ci bisab soppeem bi nga xam ne. mooy guddi mawlit di guddi gi nga xam ne bàyyi ci la daan teral yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa barab bi nga gis nañ ñi di dugg di ziyaare nii fii mooy néegu Baay Ñas fii la bàyyi di daan recevoir sérif yi mboolem ku ko ñëw seeti fii la la daan ñëw recevoir fii moo doon néeg bàyyi néegam bi nga xam ne moom moo ko sancal boppam gannaaw bu mu gàddaayee lew na ñëw Medina Baye Niass fii mooy néeg bu nga xam ne moom la rëddal boppam moom la sampal boppam ba tey changé wuñ ko fii mooy néegi Baye moo tax nit ñi bu ñëwee gàmmu foog ñu ñëw dugg ziyaare néegu Baye ñaan seen soxla parce que moo ko waxoon ne képp ku ñëw Medinam ngi nii boo duggee biir néegam aajo boo mun di am nam fi nee woon ci jëmmi zaayiram di tëdd ci kaw lal di faj ajo yi tey ku fi ñëw jàkkaarloo lal bi sa aajo day faju loolu Mawlana Cheikh Ibrahim moo ñu ko baaxee. ci teewam ak ñàkk teewam ci barab bi nii. organisation bi nu muy demee ku ñëw da ngay da ngay da ngay ziar dem wala am ñoo xam ne dañuy toog def seen ñaan ak affaire waaw comme fii tey ñi fi ñëw tey di ziare tey ci góor ak jigéen dañuy dugal góor ñi góor ñi buñ duggee dañ leen di may temps bu gàtt ñu ñaan seen soxla parce que nit ku jógee barab bu sori ngir ñëw ngir mawlid bi nga xam ne moom la bàyyi di defal yonent yàlla Muhammad war nañ laa may distance nga ñaan soxla bi nga xam ne moom nga fi andi. jigéen ñi buñ duggee ba génn góor ñi dañuy dugg génn ñu may leen temps ak ëdëb bi nga xam ne moom la ñu bàyyi jàngal doomi aadama ak melokaan boo mun di àndi rek ñun dinañ mën a tey génn ak yar dem ak yow wan la li nga xam ne loolu loolu la barab bi bugg ak lu barab bi bañ waaw ñun nii la ñuy dundee biir Médina Baye Niass. naka nga gisee gàmmu gi ren par rapport ak bu daaw. waaw gàmmu ren bi moom sant yàlla bu baax a baax. gàmmu ren gi ak bu daaw bi tey bu ren bi nag bari na nit bari nit bu nga xam ne sant yàlla nag moom loolu yàlla rek moo koy def wante tey nit ñu bari tey gàllankoor téye na leen ngir lan fee mbas bi nga xam ne yàlla wàccee na ko ci réew mi muy coronavirus bii nii ñu ngi ñaan yàlla yal yàlla yàlla yemele ko fi tey ñu bari loolu moo tax tey ñëwuñ ak ñu bari tey ñu ngee comportement wu di jël max di takk seen kanam ngir lan ngir protéger seen jëmm. loolu moo waral tey nit ñi nag ñëw neen parce que doomi aadama yuñ gis ren ci gàmmu gi daaw gisuñ leen woon ci gàmmu gi kon tey yokkute am na tey parce que tey yokkute bu njëkk bi nga xam ne ñun moom leen sant tey si gàmmu tey jii am na ñu bari tey dañoo doxee depuis ci garage ba ci Médina Baye Niass ngir lan circulation bi moto yi dañoo xat ba nit ñi amuñ fuñ jaar ñëpp ngi bëbb ngeen ñëw Médinatu Maulana Cheikh. ñu ngi ñu ngi ñaan yàlla seen télévision bi yal na yàlla. barkeel ko bàyyi nee na barke du jëmm wante fépp fu mu nekk rek ñu xam ko yal na yàlla barkeel seen euh, télé bii nii na yàlla def ko ay télé yi télé yal na ngëneelu Cheikh Ibrahim wàcc fa ci barke Maulana Cheikh Ibrahim ñu ngi leen di ñaanal yàlla ci barke néeg bii mboolem aajo bu leen topp ak soxla bu leen topp yal na bàyyi ñes faj ko comme nu muy fajee soxla yi jaam yi muy euh, lalam bi nga xam ne moom la laan tëdd lal bi nag moom gence wuñ ci dara lu dul darab bi nga xam ne moom lañ koy lalal si darab bi si lal bi comme sa chaque année lii jamono bàyyi la ba tey moom lii moo ko laan tiim plafond dañ ko sensé parce que bi fi newoon njëkk ak bi fi nekk léegi dafa wuute kilim bi tamit dañ ko fi def bees la bële moo doon kilimu Baye Niass Baye lii la bëggoon parce que nitu yàlla la moo tax yëfe àdduna moom waxut si woon leen moom léppam daf ko jëmmal ngir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lii tamit ci jamono bàyyi la lii fuul kaamilu alxuraan moo nekk nii lii jamonoom la ventilaire yi yëpp dañ ko fi def wante lii bàyyi ko fi def ak bii nii ko fi def ak bii ak bii bii tamit bàyyi ko fi def lii ay safitikaa la yi safitikaa dañ ko ko joxoon ci réew yum demoon Nigeria ak yeneen réew yi léene moo nekk tubaab bi bañ demee ci jant bi photo jant bi ba bàyyi di loon wax na jëm mu ne nit ñu ñuul ñu ñàkk neen fayda ba nit ñu weex ñi jiitu leen ci jant bi lii tubaab bi nitaal boobu noonu Baye Niass moo ko amee mooy bi lii mooy kaamilu Maulana Cheikh Ibrahim yi nga xam ne ñun moom lañ ko fekk te lii depuis jamonoom fu mu taxaw ni fala laan taxaw sees yi bàyyi ko fi bàyyi soo bàyyee xel vidéo Baye Niass yi nga xam ne ci biir néeg bi la ko def ci biir nu mu nii ba léegi changé wuñ ko domam mouhamed nasir toog na fe ak bayma lethiam ak yeneen kalifa même no toogoy toogee nii noonu la fi toogee zancé wuñ fi leen lurul leneen li nga xam ne ak euh, moquette bi tamit dañ koo zancé parce que nii bi carolé wuñ ko woon soo gisee ñu koy carolé nit ñi dañuy ñëw di gas di tubb suuf ngir lan barke maolana cheh ibrahim bi nga xam ne moo nekk fii si néeg fii mooy makkaanam bi daal moo tax nit ñi buñ excé dañuy xencu xeeti yonti yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam dañuy xencu xeeti maulana cheikh ibrahima ñas radiallahu taala anhu moo tax bu ñëwee toog foog ñu laal lal bi ziyaare parce que Baye moo ne képp ku dugg sama néeg bi si bésab yonti yàlla muhammad soo jëlee sa loxo teg ko si kawalu lal bi teg nga ko sama jëmm man cheikh ibrahima te man ku jël sa loxo teg ko sama jëmm texe nga ba yomal xiyaam kon texe googu yanna yàlla defal ñu ko ci barke Baye Ñas si barke yonente bi lii mooy makkaanu maulana fii moom tamit lii bàyyi ko fi bàyyoon kees bi nag ñoo ko fi def ngir lan dimbale doomi aadama yi parce que dina am ñu ñëw seen sofeel ak seen mbëggeel dimbale leen pour ñu bugg a joxe addiyatu Mawlana Cheikh Ibrahim amuñ mone moo tax ñu jël booy bee teg ko fa pour mu leen di mone di leen di jàppale pour ñu mun a ziyaare ñi xamut bu ñëwee ñu expliquer leen ne leen ne lii mooy lalu Mawlana Cheikh El Hadj Ibrahima ñu changé wuñ ci leen lal bi moom depuis jamonoom nii la. ngeganaay yi nag moom ñoo ko fi def bàyyi benn ngeganaay rek la amoon moom léppam yàlla kenn la moom jëmm jooju rek la laan demee bàyyi bëggutoon yëfi àdduna alxuraan rek moo ko ñor ak mbiru diina kon ñu ngi ñaan yàlla barkeem yal na wàcc si ñun ci lépp lu ñuy yëngatu rek yal nañ ci yàlla dimbale ci barke Baye ñas moo taxoon ma ne bàyyi ma dugg baaxee leen lii parce que dafa am solo ci ñi nga xam ne mënuñoo teew ci gàmmu gi buñ ko suivre rek dinañ xam ne lii moo nekk mérinatu Maulana Cheikh Ibrahim السلام عليكم ورحمة الله تعالى هل يا ربنا وظالم لاما وهو للخلق رحمة وزباء كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء متى ولات أزماء